daam safar jógal te xalam yaa fi way ete way suwaasir murit yi di bég wayal teraanga yi teraanga yi sëriñ bamba yaa ngi fu fi dara ne tey ahmadoo ko def moo ko liggéey nan topp ndigal ndamal murit bi xam li ko war mooy topp ndigal màggal gi mooy ndigal lu wér moo mat a jëfal màggal gi màggal ko bu wér daal di koy dundal di jàng kay ñaan a kay bernde topp ndigal màggal gi day ndamul lislaam tey li mu ñu defal moo ñu sagal moo ñu sigil bés bee ñu teral ku fi am jàmm bay sant di suñu ta waral ngay sant bés baa ngi bàyyi daam yaa ma leen gënal loola waaye man di wax itam bambaraw na leen màggal gi firnde la si bés bii bu ni mel amul li an asal yow mu yow mu sukkur wadduha aka waxtaan ne daam jàng xasida ñu lay teral xeetu cant gi nii la dee ko bàyyi xel iqra bismi rabbika bil xasida tofal bu nu xëyee na sañ say xay te seliti yi sekki ges ne solal palmaan lépp teraanga la juru ceraak laa fa maxtu ay maraakiis xaftaan bu jot kurus kaala lii teraanga la faslum fii bernde bernde yit kii la café Touba ki neew si xew ju tëje lépp teraanga la beñe fariñ ak mburu mbaa sax moom beñe dugub keke ki met leen dañuy servi cee teraanga yi taaj raxasulal nap teg booli bernde nii lay demee ñuy servi ndox ku sedd yi wala lépp teraanga la ñey mis yu xar ñey ñooñ ganaar ñey sal fixati naa tekki koppin uwaa yaa nga lépp teranga la ceebu suyeer ceebu ngot cerey taalaa la ja salaa sun orne dañuy servi lépp teranga la ñeent ak bool juróom ak bool dabi màggal du xat du am seeñu du am ñuit teranga yee doy tufe kuskus mbaa macarona bool yaa ngay tege vermicelle ba mbaa petit pois lépp teranga la banaana ak orange resé xeeti berne la soow piir ak pam ja day teew ndax teranga la musuwaar asete kirɗa afta bernde la ata yaak singom dina tegu sa lépp teranga la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 internet www.c3s.sn